Omar, j'ai trouvé euh, a, a, fait une analyse très, très intéressante en parlant euh, d'agressivité et de, et de, et de, et maladresse, euh, de manque de réussite. Parce que quand on regarde le match Sénégal-Algérie, le Sénégal, je pense que le Sénégal a fait très bon match dans le contenu. Le Sénégal s'est créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas été efficace. Si, si euh, dans les 15 premières minutes, dans les 15 minutes, le Sénégal a joué dans le cadre, de l'Algérie. Et c'est créé beaucoup d'occasions. Après, subitement, on a reculé. On a reculé en mettant un bloc bas. Et, et, euh, euh, euh, subitement, on a eu reculé, mm -hmm. bloc bas. Et là, les Algériens ont mis beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon. Mhm. Ils ont même pressé. Et là, l'Algérie a commencé à dans le match jusqu'au la mi Ils arrivent en deuxième mi Bigné en deuxième mi Ils ont continué comme dañ loolu lañ continué ba dugal but bi bi ñu dugalee but nag bàyyi ñoo bal bi xam nga lu may fàttali damay fàttali ñaari match ñu fële Algérie euh, en 2019 en 2019 boo xoolee suñu match contre Algérie premier match bi dañ ñu ànd agressivité di di dal suñu kaw dal suñu kaw euh, deux euh, après. ils mm-hmm. deuxième match bi ñu ñu teel a dugal. Mm-hmm. bi ñu teel a bàyyi ñu bal bi à chaque fois Sénégal yi dañ naan ñoo dominer Algérie donc moi je pense que si match bi. ils ont mis ces ñaari variante la ñu andi benn bi euh, dañu bàyyi bal bi benn bi dañu pressé mais ça du problème euh, Aliou wax na ko ce qui ce qui nous a match bi ñun ñu manqué mooy agressivité sur le porté du ballon y' a aucun on l'a fait mais mais constant wul malgré tout sax on s'est de des donc je pense que le match bi ñu footballé contre Brésil bi ñu footballé contre Brésil Brésil l'équipe a été l'équipe dafa constant ci agressivité ci portée du ballon c'est loolu moo mettre en difficulté euh, comment ça s'appelle le Brésil à chaque fois que bu Sénégal joué agressif sur le portée du ballon c'est-à-dire que empêche euh, comment ça s'appelle l'adversaire de développer son jeu day andi day là là on devient bon et loolu sax mooy football Aliou Aliou Cissé ce qu'il le portée du parce que il faut à, à ce niveau-là doo bàyyi joueur réfléchir maintenant par rapport à ces questions mais évidemment parce que euh, quand il a un jour en profondeur comme comme comme Ismaïla Sarr day joxe ay possibilités de passe pour ses adversaires c'est-à-dire que aujourd'hui euh, maanaam Sadio Mané bi fu nekk Ismaïla Sarr donc bal bi du ko lu bari donc euh, Koulibaly day am possibilité de de euh, alternance passe courte passe longue boo xoolee ci match bi tout euh, appel tous les appels yi yi yi kii def Iliman Iliman Ndiaye Iliman mhm. Ndiaye gisoo bi mu def appel en profondeur tous les appels c'est c'est vers notre but même da nga jox bal mu ñëwaat suñu kaw euh, euh, mu mu ñëwaat suñu kaw buy appel aussi day ñëwaat suñu kaw donc e, moo tax à un moment donné on a manqué l'équipe a manqué de profondeur et quand ça manque de profondeur et la day facilité équipe maanaam équipe adversaire bi pour mu mën la presser parce que xam nga football dafa am pressing et se défaire du pressing. léegi nag pour se défaire du pressing. Mhm. il faut nga am possibilité de de de passe donc mais c'est foofu nag Ismaïla Sarr ku mel ne Ismaïla Sarr mhm. manqué ci ci ci match ci